asalaamaaleykum wa rahmatullah ñun daal boobu ñu ngi ziar baax alhamdulilah ma dama laaj ndax dafa am xadis bu wàcc wax ne maanaam nit bu ñëwee di faale ndax am xadis buy buy wax loolu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wal haqq sabit ñu ngi leen a nuyu leen di siyaare baax mbokk mi laaj mu ne ndax dafa am benn addis bu wax ne ku ñëw di leen di laaj avant mën nañu leen bu leen ko tontu am na ñaari addis yu mel noonu benn bi dafay wax ne assalaamu xablal kalaami waaye olamaaw addis ne nañ du addis bu sax bu jóge ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko solo na addis la boo xam ne bu ñu sib la Albani nga ko boole ci addis yu mawdu yi nga xam na dañ leen a créé amaat na beneen bu ñëw man badaa bil kalaami xabla salaami fala tujibuhu ku leen eh, ñëw di leen waxe avant mu nuyu leen bu leen ko bu leen yenn eh, ci boroom xam-xam yi nee nañ addis bi am na darajaay na bu rafet la waaye Abu Sar'a nee na amut cosaan moom addis boobu buñ ko xoolaatee ci yeneen téere sunna yi nag dinañ fekk ne eh, ku mel ni eh, Albani moom wéral na ko moom addis mujj boobu eh, ndax Ibnu Adi moo ko solo wante ibnu adi mi ko solo da ko jëlee ci xafs ibnu amrin te moo wax ne xafs ibnu amrin fi baadi riwaayaatihi ma la yatataabau alayhi yenn ci yi muy solo e, nam ko war a seggee du ko def e, bu ko defee loolu tax am na feneen sax fu mu waxee ne moom àddu ne ay addis yi Xafs ibnu amru amru addisam yu bari munkar la benn ci sanat bi benn ci matnu bi nee daal e, lim gën a jege mooy ne e, daif la abu xaatim ne kaana cheykhan kazaban xam naa li tax e, adi albani no wi addis bi werna mooy ne e, malgré li ñu wax ci moom yooyu yëpp mooy ne imaamu muslim danay sukkandiku ci moom bon du mbooleem addisam moo num tut moo moo wéradi ala kullin e, abu saraa nee na nayoo sunna la waaye delloo ko farata la ki ñëw na na na la ana yowno caaroy bi salaamaaleykum nee na lim war na njëkkee mooy salaamaaleykum gi bu ko njëkkee hut mujjee ko yow sa delloo lu war la bon mu jàpp moom ne addis boobu di wax ne ku la njëkk wax waxee avant mu nuyu leen bu leen ko tontu ne ne amut cosaan wallahu taala aalam